asalaamaaleykum fii si champ de course ñu ngi leen teewal à seen télévision Mourchid TV si seen site www point moustarchidine point sn tey nag ñu invité woon sunu mbokk mu di Serigne Ndiaye di responsable si daayira bi yore le comité permanent ñoom ñooy géré lépp loo xamante ni moo dellu si wàllu liggéey bi tey di bëccëgu jeudi dañu ko fas yéene woon euh, tëral mu dellu si lépp loo xamante ne bi si wàllu organisation gàmmu gi la bu dee suba si àjjuma comme si la njaboot di commencé di ñëw les condicibles suba bëccëgu teertu lay doon dem si dal yi xool ba xam nu ñu organiser euh, gannaaw si suba di bëccëgu gàmmu ñu jagleel ko kilifa yi lépp loo xamante ne bi kilifa yi wax nañ ko dinañ leen ko jotale kon nag tey dañu façon yéene euh, ñaan suñu mbokk lépp loo xamante ne bi teg nañ ko si wàllu organisation étape des travaux ndax itam seetlu nañ ne euh, waa Moustarchidine dimension organisation lu ñu fonk la ndax itam dinañ ko jox lu tollu ni seen kilifa tollu ndax itam kilifa gi dafay faral di wax nee na fas bu ko jox sa xarit jox ko xaritam day itam gis nañ ne vraiment liggéey bi day doon liggéey boo xamante ne bi bu mucc ayib lay doon ñu bëggoon xam rek comme ñoom ñoo géré terli ni naka lañu ñu doxalee boobaax léegi ndax xëy na bi ñu tàmbalee léegi yàgg na itam du ñàkk ñoom xëy na seen làmmañ moom mooy gën a jotale suñu bos pour expliquer travaux yi étape par étape naka lañu ko doxalee ko defé mbokk sëriñ ñu ngi lay dalal ak jàmm ñu ñaan rek nga baaxe ñu ci kàddu pour que rek mbokk yi xamné liggéey yi mu ngi avancer tabarkala ni ko kilifa yi bëggé ko defé bismillah suñu mbokk soxna si ñu ngi lay di nuyu di leen ziara di tamit euh, rafetlu initiative bi ngeen jël mu dellu ci lo xamni dafa nekk luy yaatal tamit nit ñi gëna xam li xew rawatina ñi ko bokkal ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk bitim réew ak tamit ñi nga xam ne tamit ay sympathisant lañu si wàllu liggéey bi li nga wax it fa tabarakallahu gàmmu gi gàmmu condiscipline la dafa fekk ne waa daayiratul Moustarchidine ñoom ñoo toog nekkal fi condiscipline yëpp yenul leen liggéey bi yëpp ba tax na fa tabarakallahu bu jotee ah si cadre ni ñu rafetale toog see jublu mën naa leen wax ni bu ñuy paree gàmmu gi ba def suñu évaluation la ñuy commencé di xalaataat gàmmu déwén incha allah euh, loolu moo waral avancé yi ñu am ñu am ko lu ñu amoon daaw xëy na si wàllu lii ñu toog tey di ko def bu daaw euh, defe naa ne ren su leen constaté moo de ren ëpp ëpp na li ñu li ñu xalaatoon ñu ngi yaakaar tam beneen yoon tam ñu passé foofu ba dellu si li ngeen mën a toog tey am seen euh, télévision di ko jàllale internet te yaakaar naa ne li ngeen si xalaat def si liggéey mën naa wax ne sax ne waa internet depuis plus de six mois wala huit mois ñu ngi liggéey si si wàll gi moo tax ñu mën a am résultat bi kooku tamit ah, ñoom si seen xalaat ak tamit jàppale euh, comité permanent bi xëy na ak yenn mbokk yoo xam ne am nañ si taxawaay yu yu baax a baax. ñu si cité rek kenn di euh, suñu mbokk maxtaan Njaay euh, si tamit loolu moo waral li ci nekk su dee wàllu nag préparation pour organisation gàmm euh, gàmmu gi yaakaar naa ne édition yi ñu def champ de course xam ni ngi bëgg a bari te fa tabarakallahu mën a gën gënoon na fi jafe wante di nga dem si organisation ba di nga xam lépp loo war a def ba tax na di ngay maîtriser euh, programme bi du bokk ak bankay nga tàmbali fi nga tolloo ba tax na yaakaar naa ne fi mu ne depuis peut être plus de trois mois quatre mois préparé nañu mise en œuvre ndax ni ma leen waxee ne waajal nañ ko mais commencé mise en œuvre di ko teg ko sur place ñu ko commencé depuis depuis trois mois commencé si xalaat commencé ah ndax euh, cellule yi rawatina ñi ñu fi gën a ràññee si ñi yore organisation bi yoroon ko ñëpp mooy waa logistique waa logistique ñi ko composé xam ngeen ko yaakaar naa ne mën nañ wax sax ne seen kii bu bees bi structure bu bees bi dafay daal di dugg si logistique dugg si côté technique bu dul loolu waa organisation matériel waa waa technique en son ensemble te mo tudd ko léegi santé ainsi de suite kon ku nekk waajal na wajalon na li nga wara def wajalon nga li nga wara def yëpp ba bi mu jotee ah, je pense que dajalé euh, daje jël le temps qu'il faut motax cette année su leen concert c'était dès le jeudi mën nañ wax né danaka depuis mercredi paré nañu paré paré nañu organisation té d'abord encore matériel liñ dan déployer déployé nañu beaucoup plus que lañ daan def rek si li gën a tuuti xëy na soo koy tudd noonu ndax nit ñi suñ nee tànt moom bâche la xalaat euh, daaw li ñu yokk yokk nañu presque je pense que quinze si quinze bâches de plus booleeg nag ñu adapté ko ak matériel bi nga xam ne sëriñ bi personnellement moo ko jëndoon si université Ramadan mu nekk euh, lu am am solo yoo xam ne daf ñuy gën a yombalal suñu liggéey ba tax na chaque année ñu ngi jéem amélioré ba xam ne problème yi ñu amoon daaw si wàllu logistique du ñàkk moom si bu si kanamee dinañ euh, jéem a waxtaan ak moom mu gën ñu leeral xëy na pàcc-pàcc yi nga xamante ni moom moo am si cellule boobu su ko defee ko jaajëfal si turu responsable yëpp ndax kàddu yi rafet na te leeral na mbir yëpp waaye comme li wolof di wax ne euh, wedd gis bokku si bu si kanamee dinañ doxantu tuuti si biir tente bi pour dëggal li nga xamante ni moom la wax ne tabarkala liggéey yi mu avancé noonu su ko defee defe naa dañu koy remercier du ñàkk mbokk yi su fekkee am nañ yeneen laaj bu si kanamee dañ jokkoo wa tax moom pour lu gën a leeral yëf yi daal tabaarkàlla kon sëriñ jërëjëf ba si kanam tuuti incha allah. comme ni ñu leen ko waxee yéen ngi jàkkaarloo seen télévision Mourchid TV fii sunu kanam ki leen fi euh, représenté mu di euh, Matar Ndiaye teewal waa logistique fii. xëy na sànq bi léegi ñu tudd tur bi te xëy na ñu ñu ñun ñi xamuñu exactement lan mooy logistique ak lan moo ko composé euh, comme yéen a ngi jàkkaarloo seen responsable mu di Mata xëy na moom dinañu gën a mën a leeral mbir yi comme ni ko Serigne Ndiaye waxee sànq ko defee Mata nga baal ñu baaxee mbokk yi yenn kàddu rek pour rek euh, expliquer mbir mi naka liggéey bi tëre. asalaamaaleykum mbokk yi waaw comme niñ ko waxee léegi rek euh, logistique mooy mengo lépp luy organisation sécurité ak technique. Mm-hmm. ci wàllu daayatul mustarshidaati donc bi gàmm gi ñëwé ñom ñoy jël seen i euh pour que képp ku fi ñëw rek di nga fekk loo xam ni dina set sa xol ci wàllu organisation ak méthode mu melni euh barab bi barab bi dafa yaatu 10 hectares la te dara du fi nekk donc ñu bu ñu ñëwee war nañ fee def loo xam ne ku fi ñëw euh, doko xamé ak bir dëkk ba motax tax euh, suñu responsable moral Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy at mu nek euh, daf koy jaral mu jog dem tugal top matériel bo xamné ni nii wa tabaarakallaa comme ni ko waxee rek bu kilifam ñëwé bëgg ndax la wax ni ni appartement yi nek aljana bu doon luyee at mu nek dina ki luyee appartement tel ko Serigne Cheikh fi waye bu fu ñëwé rek ak niñ koy organiser nga xam ni euh, ni mu ko yéenee noonu la koy doxalee. comme ni ñu ko waxee yéen a ngi seen télévision Mourchid TV ñu bëggoon a waxtaan ak Lamine moom mu wax ñi comme foule bi day bari au niveau gàmmu euh, nit ñi dañuy xaw di xëccoo ñoom naka la ñu ba xëy na dinañ mën a canaliser nit ñi ak problème mu yi nga xamante moom moo posé su ko defee Lamine donte ñaaru kàddu la nga waxtaan ak sa mbokk yi xam naa ci pàcc yu gàtt rek par rapport ak euh, organisation course bi ren jëm nañu jël ay disposition yu euh, am solo fexe ba fu waay duggee rek ci course bi incha allah su fekkee ne da nga yor carte dana am fu ñu la mën a indiqué ba place bi correspond ak carte bi nga yore nga mën fa dem toog te du am benn xëcco ndax yëgoon nañu taaw ñu bëri dañu yaakaar ne tank jaaruñ ci buntu bi nek ci talibi rek duñu am accès ci fi tolo ak kat ñu yoré waye ren ko biñu ay buntu yu bari sha allah yi nga xamni ci ni jaare rek ko tassare soo ko fan ngay jaar pour yegg fa nga bëgg yegg di nga fa yegg su ko defé ñu ñaan nit ci ñu and ak dal bañ xanté bay rawati rawatina mag ñi ak suñu yaay ak suñu bàyyi ñu and ak dal rek ta xam inshallah bu ñu ñëw fasiyé nañu dal rek niñ euh, leen di teeroo di leen daal mu dàq du daaw yooyu daal jël nañ ko ci ay matuwaay te tamit place bi gën nañ ko yaatal par rapport ak daaw lu ralli moo gën yaatu ko daaw jàpp nañu daal bu nit ñu àndee ak dal ak sago yaakaar naa ñëpp danañu ñëw kenn ku nekk fa nga war a toog nga toog fa te euh, boo xamtee ak jafe-jafe du ci am. est prévoir ngeen comme ni ngeen defee woon daaw ay écran géant pour ñi nga xamante ne bii du ñu am accès si wàllu carte yi waaw ci loolu tamit mooy comme daaw jël ci ay matukaay yu am solo ndax euh, li wér bu wér mooy lu mu néew ñetti écran yu mag dana am ñu xaajale ko ci biir course bi waaye tamit tàpp nañu dana am yeneen ñaar yi nga xam ne yu nekk ci côté yi ba nga xam ne bii ku mënul jàkkaarloo ak góor gi tamit fi nga toog di nga ko mën a gis ci wàllu écran ci wàllu sonorisation bi tamit mbokk yi jëlaat nañ ci ay dispositions yu am solo comme daaw mais tamit renforcer nañ ko. jàpp nañ ci fu waaye mën nekk rek incha allah di nga mën a dégg. xam naa comme ni ko soxna si wax rek ñu ngi ci liggéey bi ci niveau logistique ci su ci niveau organisation ci wàllu décor bi wàllu décoration bi am nañu retard tuuti mais xam na xanaa fii ak ngoon dinañ ci génn daal incha foofu lañ ci toll daal waaw. waaw kàlla kooku di woon suñu mbokku Alsaan bokk si waa organisation ñoom ñooy saytu liggéey bi. bi waa logistique lañ ñoom ñoom ñoo tàmbali liggéey bi xay na am na ay mbir yoo xamante ne bi mu ngi tegu mais ñun xamuñu exactement pour lan la du ñàkk ñu jox kenn si ñoom pour ñu expliquer ñu euh, fi ñu toll si wàllu liggéey bi am matériel bi nga xamante ni moom lañ disposé ni ñoom euh, naka la ñu koy taxawale daal kon jox mbokk. salaamaaleykum wa rahmatulah. ñu di leen ziar di leen baloox. ah di jégalu xëy na kàddu yi nga xam ne moom la ñu yëkkati waa li nga xam ne moom ngay laaj si wàllu matériel bi nga xam ne moom lañ toog nii ñu tuddee ko strat ah tribune li ñu toog nii moo doon tribune bi nga xam ne moom lañu indi woon si wàllu université Ramadan mu beesoon ah xam ne moom la kilifa gi indi woon ñu installé woon ko actuellement nii dañ ko def comme beneen genre strat pour wàllu orchestre bi fii nga xam ne moom la ñuy taxaw daal pour mën a satisfaire ñëpp daal pour bëggal nit ñi si wàllu guddik Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam am na suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane si moom moo koy def loolu moom moo waral tey ngeen xool li ngeen gis ni plan Cheikh yooyu ñu teg ko ñu def ko estrade moom lañ doon monté nii ba pare xëy na li si des bariwul sax waaye incha allahu rabbi orchestre bi si la ñuy taxaw pour bëggal nit ñi daal si guddi gàmmu gi ah lendemain bi yëpp incha allah waaw. ngi jaajëfal suñu mbokk moom si kàddu yi mu jotoo wax xëy na fàttali nañu ne fii fa waa troupe bi troupe bi si daayira bi di defee seen prestation mu waa Firxa donc euh, xëy na du ñàkk ñoom tam bu ñu nee nañ leen euh, defal ay morceau tabaarkàlla yu am solo yoo xam ne yëpp dafay dellu si bégal njaboot yi si guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax gàmmu defe naa ne moom moo gën a rëy pour ñun le defe naa ne suñu mbokk aram moom si ñuy yore wàllu électricité bi comme ni ma ko waxee léegi wàllu daayira bi am na loo xamante ni bi defe naa ne jigéen ñi ñoom ñoo si jiitu si wàllu tërali na wàllu organisation wàllu defar daal su ko defee jox ko mu jox ñu ñaari baat comme ni ma ko waxee ñu jàng jàkkaarloo télévision Mourchid TV euh, si wàllu liggéey bi dañu bëggoon xam ngeen tollu daal si wàllu installation yooyu maa ngi wax sànq ne am na loo xamante ni bi aajowul muy jigéen wala ndax yàlla dogal na ñoom ñëpp ñoo bokk responsabilité ku taxaw rek yàlla jox la ndam daal defe ñu jox la donte ñaar base rek nga barkeelu sa mbokk yi lay seetaan. merci asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp yéen ñii seetaan à travers Mourchid TV mel ni comme ni ko soxna si waxee actuellement ñi ngi fii ngeen gis ko ñuy waajal Euh, ñoo ngi actuellement ci préparation les lu de ci éclairage ak en même temps décor tante bi nga xam mom lañu lañ jagleel mam dal mam Cheikh Ahmed Tidiane donc ci lañ nek ni on a fait l'étude depuis hier soir actuellement ñu nekk ak suñu mbokk technicien di réaliser dal légui ñu ngi fait passer nos câbles tout ce qui est lumière ak ay ventilation incha ci lañ jëm mu melni mën na am bala yag d'ici demain soir ñi pare pour mën a essayer daal actuellement gis nga sang yëpp a ngi ci jàpp ci lañ nekk daal ñoo ngi leen di gërëm di ànd ak yéen incha allah fii ba fin gàmm bi ñu ngi teew fi sunu ah sunu mbokk waa technique boole si waa euh, sonorisation defe naa ne euh, matériel moom moo tegu nii am na ay mbokk yoo xamante ni bi xëy na ñoom la ñu fekk si wàllu liggéey euh, ñu jox leen ay kàddu rek ñu wax ñu seen xalaat wala fu ñu toll si wàllu mbir bi. salaamaaleykum wa rahmatullah naa da nga fekk rek ñu xaw a jàpp waaye nag tabaarakallah comme ni nga gisee rek. yaakaar naa teel nañ commencé moo tax euh, pratiquement dañ doo liggéey wàllu sono pratiquement def nañ installation yi yëpp daal moo dañ bëggoon rek xaar bi par que ay quatre heures incha allahu pour que daal ñu fexe def essayage général bon comme nag euh, am nañu deux jours d'intervalle comme ça demain man maanaam si li ñu war a retouché incha allah ñu retouché ko comme ça pour xaar nag bés bi nga xam ne bi nag mooy bi bi bi bi ñëpp di xaar incha allah ñu ñaan lépp ci barke kilifa yi yàlla def ñu sutura incha allah. bi dafa xaw a yaatu ndax champ de course non seulement dafa rëy mais itam bërëb bi yëpp dafa mel ni njaboot dañ koy feese euh, naka ngeen tëralee si wàllu sonorisation ba xëy na du ngeen am yenn jafe-jafe yi mu mënta nekk mën a suivre mbir mi ba mu am solo daal comme ni nga ko gisee bon dañu fexe ba incha wàllu installation bi ñu xool ni ñu répartir li nga xam ne moom mooy installation ndax si no parce que su fekkente ne par exemple gis nañ ne surface bi moo rëy

Ahmed teewal len fi xëy mom dinañ ko jox mu tënkal ñu sen collaboration avec Moussa Chidine nu mu démé euh, suñu mbokk Keita moom it aussi teewal fi daire bi mais aussi teewalaa len fi xëy suñu mbokk euh, anglophone yi xëy na du ñàkk bu si kanam mu defal ñu ben synthèse ci lepp lo xam ne jot nañ ko fi teunk ci subax légui kon ñu jox mbokk Ahmed mu wax ñu sen collaboration ak Moussa Chidine nak ngeen fexe ba télévision bi di marché ak euh, wàllu site bi nu mu démé waaw merci Ndeye Top Eh, ma ngi gërëm ñëpp di leen nuyu ku ci nekk tur ak santam donc eh, man xam naa ne eh, dama ci am ñaari cër parce dama doon njaboot ci kër gi ba pare dama doon njaboot ci kër gi ba pare am am benn tànk ci xalima quoi donc war naa mën a wax ci ñaar yëpp mais buñ bu deuxième bi laay wax ci xalima laay wax après ma bàyyi Keita mu wax ci turi daayira bi donc je crois que collaboration xalima ak daayira bi Euh, ci cadre nouvelle technologie une collaboration nga xamantene bi mu commencé peut être mi ngi mi ngi mais def naa ñaari parties yëpp am nañ ci satisfaction parce que l'essentiel ci collaboration moy que c'est à travers euh, portail Khalima, ak à travers euh, site daayira bi dañu bëgg lépp lu fi xew di ngëneel ñu ñu ñu fexé ba mbokk yi nekk surtout ñu nekk ci diaspora bi un peu éparpillé dans le monde ñu jot ci dal ci ni mu gëna a moo tax ñu ngi ci xar suñu tànk tubéy depuis quelque temps ñu ngi ñu ngi réunion pour rek yëpp jaar yoon ñu ngi réunion depuis au moins 6 mois entre xalima ak euh, daayira bi pour rek bu jotee le jour J euh, ku ci nekk daal euh, wàll wa nga féete nga doxale ko comme il faut waaw donc euh, ñu ñoko dégg ndaw ñu ngi remercier suñu mbokk wa Halima yi euh, si sen collaboration bu rafet bi nga xam ñu ngi koy collaborer ak euh, wa daayira bi mën nañ jox mbokk Keita moom mu wax ci turu cadre Moustarchidine euh tey ci walu collaboration boobu naka lay demee. ah kon ñu ngi leen di nuyu. I want to talk to the people who can express themselves in Wolof or in French and. As you can see, this is a website of the Dairatul Mustashidin of War Mustashidat, which is a religious association based in Senegal. And uh, the website, uh, we want the website to have an educational impact. And most of the website is about the teaching of our spiritual leaders. And uh, we want the website to have an educational impact. So as you can see, we have a uh, different part of the websites, and uh, mostly we have the educational teaching, which is based on Islam, and we have also a TV, a TV and a radio, and all the big events we have, like this event, which is a celebration of the birth of the Prophet, we broadcast it live for the diaspora because we have many people who are living in Seneg- who are Senegalese, but they are living abroad, like in Europe or or some somewhere in Africa. So they need to follow the events, and it, it's, it's important for them to have it live. So that's why it has been three years now that we broadcast the events live. So that's why we have a TV and a radio. We have also what we call university du Ramadan in French. We call it Ramadan lecture, which, has, which is attended by most of the leading professors we have in the University of Dakar. And we have also some professors uh, around the world, in the United States or in Germany, that are coming every year to have lectures. And we have also uh, something very dear, very important to our spiritual leader, which is the which is uh, the part for the children, because we have every year a summer camp, and this summer camp they teach the children the Quran, they teach the children the Hadith, they teach the children all the values and uh, everything they must know for their future life. And uh, we have also other part, and we have a uh, uh, lot of relationship with other uh, also brotherhood in Senegal, like the Murid brotherhood, like the Hadith brotherhood, like other brotherhood. We have a lot of exchange, and most of their leaders have a good relationship with our spiritual leader, which is uh, Serin Mustafasi and uh, uh, Ahmed So uh, this is the most important thing we have to, we want to say about our uh, uh website. And the address is www Mustashidin. Mustashidin, which is an Arab word. Mustashidin is M U M O U S T A R C H I D I N E dot S N, which is our address. We have also a Skype address in case somebody want to call us. And this address is Gamu. Gamu is written J a M O 2007. This is our address, Skype address. We have another address of MSN, which is uh, GAMU 2007. GAMU, spe special GAMU 2007, 2007. And we have also, in case somebody wants to write us, our address is mustashidin at mustashidin.sn. So I think this is the most important part of our work and, and as people say, the website has been rebuilt. And, and this is a new design of the website because uh, one, year, once, one week ago, it was the former design we have, but now because we have uh, this big celebration, we design it new so that people can enjoy it. Thank you. thank you Mr Keita <laughs> donc comme ni ñu ko waxee léegi donc waa daayira bi ñoom ñoo doon collaborer ak wax Halima si wàllu situ situ Moustarchidine comme ni ngeen ko seetaanee site moom moo nekkee ni nii ko Keita waxee xëy na daaw am na beneen site bu fi ne woon mais ren dañu xaw a changé pour wane ne rek euh, comme suñu kilifa tabarkàlla dafa bëgg lu jëm kanam bëgg lu évoluer moo taxit it en tant que njaboot dañuy fexe ba ren bu ñu defee lii année bi ñëw ñu gën a jëmal yëf yi. Euh, mu am euh, taxawaay bu gën a am solo daal donc euh, su fekkee dafa amaat ay kàddu ngeen di wax kon ñu delluwaat taa kàddu gi. beneen bi aussi mooy dañ bëggoon na vraiment remercier ñi nga xam ne ñoo jàpp ci site bi yëpp parce que vraiment bon site bi aussi équipe la bon du ñu def informatique rek mais defe naa am na ay caméraman am na ay technicien en électricité am na technicien en électronique am na ay technicien en informatique te ñoo ñëpp c'est un ensemble donc ku xool liggéey bi nga xam ne bon li li mu laaj dafa bari parce que am na ay vidéo am na ay ordinateur yu ñu war a yu ñu war a defar yooyu yëpp benn euh, conjugaison d'effort la donc soo ko xoolee équipe bi c'est vraiment c'est une équipe boo xam ne c'est homogène donc ñu ngi remercier ñëpp vraiment ci seen participation c'est parce que lii liggéey la boo xam ne dañ ko tàmbale lu yàgg te bés bu nekk aussi ñu daje ci bon nit ñi sacrifice bu ne la ñuy def aussi pour ñëw daje te ba pare non seulement dañuy ñëw physiquement aussi mais seen moyen aussi yëpp dañ koy apporter donc loolu vraiment ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla jàppale ñu mu gën a ëpp solo lii yéene bi nga xam ne aussi moom la nit ñi am mu mu mu mu mottaliku ci kàttanu yàlla. mbokk bi nga xam moom moo yore wàllu froid wàllu yu sedd yeex yooyu moom mu wax ñoo liggéeyam naka la demee ak itam ñu tërale. waaw bismillahi rahmaani rahim euh, ñu ngi sant yàlla sant yonent bi di leen euh, siyaare ci liggéey bi. bon ñu avancé nañ ci suñu liggéey bu baax a baax a baax parce que côté froid lañu yore bon kër kilifa yi fontaine ne fii ak euh, lépp daal lu aju ci waaru seddaay ak yooyu donc li ñu fi fekk daal problème amaguñ benn problème wax dëgg yàlla matériel bi doy na liggéey nañu et puis matériel bi suñu matériel matériel daayira bi la du matériel kenn donc def nañu ci war yëpp daal ak équipe bi ñu yëpp tam macha allah daal. kon ñuy remercier suñu mbokk yooyu ñu delluwaat euh, antenne bi ba si kanam tuuti incha allah.